voilà mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar balu leen ak bal leen ak tey nag ñu ñëw fi nga xam ni moo di marché central ci avenue Général de Gaulle euh, ñëw nag def si fi li nga xamante ni nii mooy ñëw xool si euh, affaire u euh, ubbite école gi bu ñu ne ubbite école nag xel yëpp day dem ci mbiru fourniture waaye xel yëpp dem ci mbiru sac waaye tamit xel yëpp dem ci mbiru nécessité bi nga xam ni élève bi daf koy daal di jëfandikoo fii nag ci diwaanu Thiès kaay li nga xamante ni nii moo di mbiru fourniture ak mbiru sac ak lépp lu jëm ci wàllu matériel matériel scolaire euh, ñu ngi koy jaayee fii nga xam ni moo di ci marché centrale ci avenue général de Gaulle avenue général de Gaulle nag nekk avenue boo xamante ni nii maanaam mbiri élève rek la ñu fiy jaay ba tax na parents d'élèves yi Ceeskaay yëpp bu ñu xëyee ku ci nekk bu jotee euh, kayit yi nga xam ni mooy euh, fourniture yi doomam xelam du ko may fenn fudul dul ci avenue général de ñu dem nag daal di ci waxtaan ak ñenn ci ñi nga xamante ni nii ay client lañu waaye tamit ñu waxtaan ceeg ñi nga xamante ñenn ci marchand ambulant yi nga xam ni Euh, ñu ngi ci avenue Général de ma dem te ñëw. bi ñu ngi lay nuyu. waa ñoo lay fay sëñ bi. sëñ bi tur bi nan la. du Mamadou Seck. Euh, Mamadou sekk ñu gis ne euh, fii nag avenue Général de Gaulle yéen ñi nga xam ni yéen a nekkee fii muy borom place yu mag yi yéen yéen a fi nekkoon yéen lañ fi mës a xam commerce ambulant yi ñëw fii. ñu jékki-jékki gis ab diir ñu jëlee leen fi waaye ginnaaw bu ñu leen fi jëlee dañu jékki-jékki waat ñoom ñu daal di dikkaat. nee nañu ñoom ki nga xamante ni nii moo di euh, préfet bu ville bu cees moom moo leen jox ndigal ñu ñëwaat fii euh, nan nga gisee loolu ma Mamadou. waaw dama ci gisee maanaam euh, ñoom ñëpp dañuy liggéey. Mhm. te gone tamit wax dëgg yàlla réew mi fu mu toll nii ñëpp liggéey rek moo war parce que ku nekk xaalis nga bëgg ah. Mhm. waaw ku nekk bëgg nga dimbale sa njaboot bëgg nga loo dimbale sa waa kër. Mhm. mais tamit bu mënoon a changé ba mu gën a yaatu nii. dina baax parce que fii bu bloqué mun na indi ay yoo xam ne mooy tey bu fi dara amoon tey. lakk-lakk wala leneen pour ambulance dugg fi du yomb. waaw mais tamit jeunesse tamit war nañ leen jàppale pour ñu am lu ñu liggéey vraiment ñi ñëw ñëpp presque ay responsable lañu mhm. war nañ dimbale seen waajur war nañ dimbale seen jarbaat nangam ak nangam ak nangam mhm. waaw bon am na loo xam daal wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam nañu euh, comme daal yow euh, sa gis-gis mooy euh, ambulant yi nañ leen fi bàyyi ñu liggéey non man neew ma mhm. pour ñu bàyyi leen fi te ñëpp tam mun ñoo am place wax pour ñu bàyyi leen fi te ñëpp tam mun ñoo am place bu dee fi nekk ñun sénégalais ñu jëm a organiser wu parce que xam nga war na set xam nga bu ñu nee lépp dañ koy teg ci loxo état du yombul wala bu ñu nee maire moo war a def moo war a setal moo war a def ni nanga xam nga tey bu ñu jaayee ba pare ku nekk am na mu salte nga dem ñibbi sa kër loolu tam di yoon sénégalais warul demee noonu réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk daal man sama xel man ci war a boole ñu defar dañoo a boole ñu bu ñu xëysee fu ñuy jaayee ñu mu rafet bañ xëccoo bañ waxante lu ñaaw xam nga amu ci solo daal maanaam daal yéen daal labinta bi daal man loolu laa gis daal ah loolu nga gis waaye sànq xëccoo bu metti am na fi nga ko jàngatee waaw ni ma ko jàngatee maanaam euh, yàlla moo ko sàkkoon te yàllaa ko jël bon kul nafsin saakatu mooti bakkan mos dunu mos dee yàlla na ko yàlla yërëm te xari ko àjjana yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla nañ teeroo ñun ñëpp àjjana firdawsi amiin bon nag bu ñu xooloon ñu mën a organiser mhm. ñun ñëpp état am na ci responsabilité ñun sénégalais ñun ñëpp am nañ ci responsabilité mhm. nañ jëm a booloo ñu defar parce que vraiment booy ñoom tamit dañuy liggéey mhm. ñeneen ñeneen ñi liggéey am na ñoo xam ne feneen ak feneen ak feneen bon yàlla dogal na ne ñoom ñoo war fee jóge dañ fiy jógee mhm. waaw maanaam daal man sama ci ngàttal wax daal ah, ki ci ñàkk bakkanam client la wala kuy jaaykat la donc bon man nag mënumaa leer ndax client la mënumaa leer ni ndax jaaykat la mhm. loolu moom mënumaa leer quoi waaw mais xam naa ne daal fii la yàlla dogaloon fii la war a ak yooyu man fekkewu ma mhm. wax dëgg yàlla gis naa ne daal sapeur ko ñoo jël si waaw yàlla na suuf sedd ci kawam pour dañ ko dóor ak coow a am ak loolu fekkewu ma ku dee ak sa baameel waaw mais xam naa ne daal nañ gën a organiser ku dee ak sa bàmmeel fekkewu ma fuñ ko dóoree gisuma maanaam fekk naa ambulance jël na ko dem na waaw dëgg la nag fii place su liggéeykaay la dañuy liggéey xam nga rek ku nekk fii daje. nit mun a amee tabi tey feneen ñëw fii mu engagé ko leen ak lépp xam ne ak et ak climat bi tey tàng waaw yooyu yëpp mën na nekk daal waaye daal Fall daal ci gàttal ci guddal daal euh, nañ fóot xol yi ñun ñëpp ay Sénégal lañ nañ fóot xol du président kese ko mën a defar du monsieur maire kese ko mën a defar ñun ñëpp ñoo ko a bu boole defar même les bailleurs de fonds nga xam dañoo am alal nekk ci dëkk bi bon bëgg nañ jàppale jeunesse bi mais dafa am lu xaw la na pour baax fi nag euh, am na solo lool waaye nag euh, yombul il faut nga jaayante parce que da ngay defal nit lu baax nit ñi toog fi di la pour seen intérêt personnel bu yàggee da ngay siisu quoi maam nañu muñ tëdd mooy daal nañu muñ tëdd mooy lii nag yàlla jaal de bari sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ bi noo tudd yow waaw man Baye Talla Mbaye laa tudd ñu naan ma Petit Mbaye jaajëf waay ñu gën laa xam ci Petit Mbaye tey ñu fekk la avenue Général de euh, bi nga xamante ni nii bu ñu nee mbiri ubbite école xel yëpp fii lay dem ndax lépp lu jëm ci wàllu fourniture li ko dalee ci saak jëm ci ay kaye jëm ci ay livre yëpp fii la euh, tey jii mu fees dell waaye Baye Talla ñu nemmeeku ñu ne Euh, ñi nga xamante ni ñoo di ambulants yi comme seen genre yi euh, dañ leen fay jëlee woon léegi jekki-jekki ngeen daal di ñëwaat léegi nag suñ sukkandikoo ci yenn ambulants yi ñu jot a waxal euh, xamal nañ ñu ne ñoom préfet bi moom moo leen joxaat ndigal pour ñu ñëw baytaala noo jàngatee loolu. waaw boo gisee fii nii man samay gaay sax ñoo fi nekk man boo gisee du ma ambulance sax téer laa mais samay gaay yoo fi nekk ma yoroon benn kii ñu xelal ma pour ma ñëw jënd saagi ñoom ñuy jaay ay ma ànd ak ñoom di liggéey may jaay ay kaye di jaay ay sac ma préféré sax taxaw ci tali bi di woo clients yeeg yooyu noonu ñuy kiyante gaa nag préfet bi commencement bi bañoon na ko mais li ci gën a rafet sax mooy borom place yi ñoom ñoo bëgg gars yi di taxaw ci biti di woo nit ñi ndax boo xoolee prix bi ci biir ak prix bi ci biti benn la wax dëgg yàlla gars yi fii ñu ngi liggéey liggéey bu nice séq jàmm di aalante weccet bu nuy toog ñun ñooy año añandoo ensemble di waxtaan di béggee tamit loolu na man ki initiative bu rafet la boo gisee yàlla xam na ne man maa ngi soog a ambulant maa ngi soog a jaay mais li may def nii fierté laa ci am quoi dañuy toog di waxtaan ak yooyu ñoom ñooy soo toog nii ni man dax bagage bu mel nii amoo ko mhm. bii manqué nga ko demal jëli ko ñii ñu taxaw xaar la kaleel ma client beeg yooyu noonu mhm. yooyu yëpp yu rafet la quoi mhm. Euh, yoo lépp lu rafet la waaye tamit gis na nu xat-xat bi nit ñëpp daw si nañu ñëw marché bi xat na ñëpp daw si jëw si ñëw euh, avenue Général de ba tax sax xat-xat yu ni mel tax na nit ñàkk fi bakkanam sànq euh, noo gisee loolu. waa xat-xat bi nag taxul kooku ñàkk bakkanam ndax soreewul woon ñoo dend. côté bi may taxawee la paa bi. dafa sonnoon ñun dañoo jàppoon ne sax kuy noppalu ko la mais daa jékki-jékki bàyyeeku ci ginnaaw ki toogoon. léegi bi mu bàyyeekook foofu noonu ñun ñoo doon xool fii sax mhm. ba xam kii naag yooyu noonu mu mel ni genre crise mais daa jékki-jékki seddu guy mhm. nga xam ne ndogal suñu borom la xam naa fi feneen la doxee nag ba sonn ndax fii boobu sax xatul mhm. heure pause la ñun ñi taxawoon bariwul ñi taxaw presque bariwul nit ñi boobu feeseegul woon nii presque ay booru 15 heures la 15 heures 15 heures 16 yooyu noonu juste boobu noonu kii bi miteegul sapeur nag xaw naa yàgg nag quoi. Mhm. mais kii bi kiiwul noonu quoi. sama wet la woon juste. waaw jërëjëf waay. soxna si ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, soxna si tey nga ñëw fii ci avenue Général de Gaulle ñëw jënd si li nga xam ni moo di sa fourniture njaboot euh, dañu buggoon rek nga wax ñu tuuti ci problème mu fourniture yi euh, ndax yomb na ren. ah tane na rek. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. tane na rek xam nga rek. ouverture des classes bu jotee moom foog nga dina saa yi doom fourniture mais tane na rek. Euh, tey jii nga ñëw fii fekk fi marchand ambulant yaa ngi fi euh, gars yi borom place yi tamit nekk fi euh, nan nga gisee loolu ca ñoom marchand ambulant yi dañ leen fi jëlee woon ñu daal di ñëwaat nee nañu préfet moo leen jox ndigal waaye tamit monsieur le maire bu maire yi bu noor moo leen fi jëlee woon mbir moomu nekk lu jaxasoo lool nanga ko ko gisee. xam nga loo gis rek jàppalante la parce que marchand ambulant yi amuñu lu ambulant parce que ñun ay responsable lañu comme ñëpp lii ñuy def nii seen i seen parents yi seen doom yi ak seen njaboot bu leen fa xañee ne day metti si ñoom mieux vaut nag ñu dawal yërmande rek du jàppalante rek def ko affaire sénégalais rek nañ jàppalante rek dëgg àddina mu solo. <laughs> ah yow daal loolu nga gis ñu jàppalante. waaw nañ jàppalante rek parce que ñoom aussi ay responsable lañ ay père de famille amee seen ay famille amee seen njaboot. baax na si aussi ñu jàppale leen buñ bàyyi li lu ñu jàpp am lu ñu def moo tax ñuy def lii xam nga lii neexu leen nu ñuy il mieux vaut jàppale leen rek. waaw waaw pour ma waaw man pour man bu leen jëfandikoo dama jaay. mbokk yi mu ngi noonu gannaaw ba nu sukkandikoo ci kàddu yi ñi nga xam ni ñoom ñoo di clients yi euh, mooy euh, ñi nga xam ni ñooy marchand ambulant yi nanu leen bàyyi ñu toog. tamit ba tey beneen problème bi nga xam ni moom moo fi nekk gannaaw si euh, booloo doon benn ñi nga xam ni ñooy marchand ambulant yi nekk ci avenue Général de di jaay lépp lu jëm ci mbiri fourniture dañu leen fee jëlee woon ci lu yàggul dara ab diir lañ ci teg ñoom ñu daal di ñëwaat ñenn ci ñoom euh, nee nañu mbedd mi mbedd buur la fu ci waay neex taxaw waaye nag ñi nga xamante ni nii ñeneen ñi ñi ci des euh, euh, seen kàddu mooy ki nga xam ni moo di préfet bu ville bu Thiès moom moo leen delloosiwaat fi nga xam ni moo di seen place ci avenue Général de waaye tamit beneen problème bi nga xam ni bi gën a garaaw mooy tey ji xel yi ak xalaat yëpp jubal si na ñëw fi nga xam ni moo di avenue Général de ndax lan ubbite école structure pour seen doom yi muy parents d'élèves muy jàngalekat ñoom ñëpp fii la ñu ñëw ba tax na xat-xat boobu am fii ba nit jot fee ñàkk bakkanam jenn ci jaaykat yi nag bu ñu sukkandikoo ci ñoom euh, li ñu xamal moo di euh, kookee nga xam ni dafa ñàkk bakkanam du buuxante waaye tamit du ab xëccoo moo tax mu ñàkk bakkanam waaye dafa doxee fu sori xëy na wala sax am lu ko dal ba tax na mu ñëw ba fii nga xam ne moo di avenue Général de Gaulle ñoom fi ñu nekk mu daal yàgg mu daal di daanu gars yi ñëw xool ko fekk mu ñàkk bakkanam ba sapeur moo ko fi mujjee jëlee koor ba nag ma nga foofee ca hôpital régional bu Thiès lii nag nekk li nga xam ni mbokk yi lii lañ leen jël si li woon fii ah, ci avenue Général de Gaulle ki ci micro bi di seen mbokk seen xarit seen soppe ah, Papis Seydi